Sidi Lamine euh, yàlla dogal na sa waxtaan lu bare waaye tubaarkàlla bi mu bi mu wàcce ne ci côté bi na le di war oto bi maa ngi gis maa yàlla dogal na sax boobu lañ boobu lañ a gisee ci maa ngi kontaan ci laa mës a ci laa mës a joxante mu àll boobu ñu ngi jëm benn xew xew nii moom Oustaz Assane Diouf euh, mu ngi ànd ak benn taalibeem bu benn taalibe mu tax ànd ak jabaram yor doomam wàcce leen ni ba ñaanal doom ji fii fii yàlla xam na ko ci laa mu ci laa mës a gisee nag mooy suñu gën ma kontaan lool keroog am mbégte lool tubaarkàlla di ñaan yàlla yàlla ko yàlla xaru aljana ci barke yonente bi sallallahu alayhi ci barke eh, kilifa diine gi nga xam ne moom yàlla jox te mu doon wéttali ñëpp doon nekkoon sagu senegal ñu ngi ci ñaan yàlla bu baax eh, di am kontaan bu baax a baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf kontaan nañ kontaan nañ. ñu gis ne signal Walfadjri dañ ko suspendre pendant un mois. en tant que sénégalais ñu bëggoon xam sa sa xalaat si mbir mi. Ah, waaw bon dañ koy ñaawlu rek parce que tamit Walfadjri ku ne xam ne ni moom nii la yàgg mel quoi vraiment rajo bu bu ñëpp man dama koy déglu tout le temps rajo bu ñëpp bëgg la te ay sénégalais ñoo fi nekk di liggéey xam nga war nañ leen a war nañ leen a mënoon bàyyi ñu continuer seen liggéey def seen lii parce que taxul taxul état wàcc taxul état yéeg xam nga Macky Sall tamit il faut que muy beneen instant muy jëlale tey jégale tey Walf tamit ñu xoolaat seen taxawaay tamit parce que am na loo xamante ni xam nga euh, kenn du ko rafetlu daal euh, parce que euh, dëkk bi moom ni mu bindoo képp ko am ay nit ba leen di liggéeyloo xam nga loolu lu baax la ko waaye tamit ñoom tamit bu yàlla leen yàlla dimbali Macky Sall moom moo def lii mu teggi ko teyit ñoom tamit ñu xoolaat ni ñu doxalee bu baax xam nga xam ni sénégalais dañ a bëgg moo xam ñu ànd ak ak ñu àndul ak Macky xam nga ñu bàyyi leen doxal seen liggéey. wal fajiri askan wee moom ah, li mu je ne pas reportage bi mu def xaw ma lan la la lan la def mais deful fi lenn li nga xam ne yeneen télé yi defuñu ko waaw donc euh, euh, li ñu dagg signalam c'est pas normal il il faut qu'on la vérité waaw te nañu rus tuuti Sidi Lamine Niass waaw ah c'est un homme qui s'est battu pour la démocratie sénégalaise waaw nañ am kersa si moom. day nekk lu nga xamante ne da nga koy naqarlu ndax comme ñu koy defee xam nga wal Walfadjri c'est la voix des sans voix la voix du peuple te man ma nekk l'animateur aussi du peuple. donc bu fekkee ni dañoo couper signalu Walf loolu nekk na loo xam te ni du dëgg du yoon et que fan yi yëpp gis nañ même dans les réseaux sociaux ñu ngi gis ay vidéo yuy wax ni même par rapport ak benn opérateur bu nga xamante ni pour joxe xaalis la bu nga xamante ni ñoom it dañoo dañ leen tegal benn daan sax nax jàppale bu nga xamante ni nee nañu ñu ngi ko doon jàppale kii di groupe euh, ri mais it dañoo war a nekk ci dëkk bu nga xamante ne liberté d'expression dafa war a am maanaam presse waruñu ko xoxatal waruñu ko néewal doole ndax gisoo même ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi jamono toll nii am na ay temps yu nga xamante ne pour ñu mënaan a wax dañ daan ñëw ba walf fekk Sidi Lamine fii mu ngi fi woon yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana donc bu ñu demee bay néewal doole organe de presse yi loolu c'est grave loolu dina mel ni comme si euh, génocide am na génocide am na ndax presse dafa nekk lu nga xamante ni comme santé ndax ka nekk fële mi ka nekk Koumpentoum ka nekk Kousanaat bu dul woon amul woon organe de presse yi kon amaana kenn du xaw lu nga am te ne mooy xaw kenn du yëg lu xaw si dëkk bi donc rafet na aussi ñiy njiit yi ñoom bu ñu soxlaa bu ñuy ut presse bee leen di dooleel kon bu ñu demee ba am nañu dooleel presse bi nga xamante ni seen doole fa la jógee loolu moom ñu ngi koy ñaawlu lool donc liberté la presse. li nga xam ne nag euh, am na fii ñun ñoom naqari nañu ñu ngi ciy métti lu te di leen ñaanal ci barka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax télé bi tele senegal yëpp la ñun ñëpp dañuy jëriñ ci télé bi télé bi suñu télé la yàlla dimbali loolu télé bi moo ñu dimbali lépp lu jaaxal ci Sénégal tele bi moo ñu moo ñu dimbali ci Sénégal e, e, lépp loo xam ne lii lu lu jaaxal doomu aadama la tele bi moo ñu ci dimbali kon lii am yàlla na ci yàlla génne jàmm neexul kenn neexul neexul kenn yàlla yàlla yàlla génne leen ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi man déjà personnel neexuma en tant que sénégalais. pourquoi parce que dañ nekk si benn réew boo xamante ni dafa am ay valeur et puis ak lii di xew actuellement ñun dañ jàpp ni benn chaîne lañu mën a jël ay information yu wër yu vérifié muy wal fa Walfadjri donc j'ai du mal vraiment à comprendre euh, le fait de couper un signal national parce que noonu laa ko mën a woowee parce que Walfadjri ñun bu ñuy nekk xale la lu tey donc xam nañ Walfadjri bu baax en plus euh, Sidy Lamine Niass on le connaît pas personnellement mais xam nañ lu mu liggéey waaw donc euh, dafa neexul ci kaw en tant que sénégalais léegi man lenn laa si mën a teg politiquement euh, politiquement tey politiquement suba mais li nga xamante ne mooy information c'est légal pour chaque sénégalais donc légalité boobu noonu mooy Walfadjri donc dañuy jéggat rek ñu delloo ñu suñu signal. man Macky Sall lay waxal parce que moom mooy moom mooy peeru nation bi comme ni ko gars di waxee donc papa ñu ngi lay ñaan nga dellool si ñu suñu signal ngir yàlla war a sóol tey am na waaye tamit suba am na solo te jar na sooraale ñu nag ay ndaw lañ ah tooñu ñu saagaw ñu mais bëgg nañ xam li xew suñu biir réew parce que ay sénégalais lañ am nañ ay possibilité nag génn am nañ ay possibilité dem defe ci suñu projet feneen mais nanguwuñu ko fii lañ am lii lañ Sénégal lañ gëm dañuy dégg tout le temps dañu naan télé yi dañu ànd ak euh, dañu dañu ànd ak euh, Macky Sall te ñoom tamit wax dëgg fa yàlla boo xoolee tamit boo ko tegee fi ñu ko teg ñoom da xam ne ñoom tamit dañu ànd ak nga ñoom tamit il faut que ñu nangul ñeneen ñi tamit li li waaw li leen nit ñi nangul il faut que ñu nangul nangul ko ñeneen ñi parce que da ngay tudd des fois ay télé nga nit ñi dañu far mais dafa am foo koy teg rek des fois mais tey jii nii maanaam boo ko tegoon fenn fenn boo xoolee Walfadjri da nga xam ne ñoom soit dañoo contre trop am fu ñu far xam nga li ñu leen di li li ñuy bañal li ñuy bañal ñeneen ñi moom lañ leen koy bañal li ñuy nangul ñeneen tamit moom lañ leen di nangul ñu xam ñun ñëpp ay sénégalais lañ quoi xam nga ñu waaw état doxal yërmande bàyyi ko mu ñu doxal seen liggéey ndax vraiment da nga daan romb fii gis nit ñi di yéeg a ko wàcc xam nga ni nga xam ne fii instant boo xoolee gis dama romb gis mu tëju ni mais bon xaw na ma kiyal quoi mais vraiment moo nañ ko bàyyi mu dox daal. ah oui mais pour fay si salarié mais c'est ça c'est la solidarité sénégalaise ah. les gens yi nga xam ne xam nañ ne Walfadjri dañ ko dañ koy noot nag ñooy jël seen xaalis di di di participer waaw pour dimbale ko tuuti c'est normal dimbale journaliste ñu ñu ñu mun leen fay. journaliste yi nga xamante ni tëj nañ leen mais ñi nga xamante ni ñu ngi woon seen liggéey euh, ñu tëj leen ñu ngi koy naqarlu mais it xam nga man bu ñu nee journaliste ñu tëj yi. mën nañu nekk am na yenn tamit si journaliste yoo xam te dañoo jël part carrément ñu ne que ñoom ay boo leen seen déclaration boo leen di déglu amaana da ngay jàpp ni que ñii sax ñoom partisan wu parti bi lañ wala partisan wu parti bi loolu mën na pousser gouvernement bi euh, ñuy mën a di jàpp ñenn si journalistes yi mais bu fekkee ni dañoo def une presse équitable bu am te ne farul fenn nekk si diggu doom bi di wax di informer juste et vrai. loolu bu boobaa di jàpp yi ñuy jàpp journalistes yi aussi dina waaj ndax euh, journalistes yi aussi des fois am na ñenn ñu am te ni euh, bu ñu waxee mun nañu ne fii la ñu far mais man ñi may dégg ñi may gëm mooy ñu am te bu ñu waxee rek ñu ne ñii ils sont du côté du peuple. Walfadjri daal li ñu ci xam mooy lépp loo xam ne lii tey nit war na ko soxla ci Sénégal euh, muy njëriñ ci loo war a xam ci lu lay jëriñ ak lu jëriñ doomu aadama yi Walfadjri mu ngi ciy dimbali ndax li amuñu ko woon Walfadjri moo ñu ko jox. gannaaw yàlla tey wal fajiri moo moo ñu defal loo xam ne nii lépp lu waay jaaxle boo ñëwee ci wal fajiri mu faju ko nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci kàttanu sunu borom yàlla leen yàlla delloosil wal fajiri télé bi yàkkamti nañu ko ndax ñu ñëpp sunu njariñ la man moom laay wéttali ko subaa ngoon ah, bañ na ko ba daanaka wal fajiri man mooy sama télé wal fajiri mooy sama télé rajo wal fajiri mooy sama rajo yàlla xam na ko barke Serigne Babacar Sy keroog bi ñu koy coupé nii ngi maa ngi déglu maa ngi déglu Oustaz Oustaz Adi Niass aw Assane Diouf ak ak ñoom euh, kii euh, directeur bi Moussa Moustapha Diop bi ñu koy déglu ñu naan image bi ñëwagul ma ma ma maa ngi déglu sama rajo yàlla xam na kay itam kër bi ñu koy coupé naqa di rek yàlla xam na ka ndax barke Serigne Babacar si. kañoon bi bu dee 5000 la sax dañ koy joxe dañ dem def retrait rek ñëw joxe loolu c'est pas un problème parce que c'est un bien national donc ku ci nekk man tam damay woo ñëpp ñi nga xamante ni ay sénégalais lañ. Et puis, euh, c'est des patriotes au vrai sens du mot. Pas patriotes politiques, mais patriotes en tant que Sénégalais. À venir aider notre chaîne, notre bijou à se rétablir dans, euh, à se rétablir dans les plus brefs délais. Walf dafa sonn Walf dafa sonn Walf opposant buy wut pouvoir Walf bokk na si la la dooleem. boo yéegee Walf bokk na si ñi ngay xeexal parce que dafa mel ni que Walf ñoom faruñu fenn fu dul ci peuple bi et peuple bi nga faral noonu na leen peuple bi dooleel aussi donc maa ngi ñaan aussi gars yëpp ñu jël benn jour bam te ni ñëpp dinañ ñëw taxaw ci buntu Walfadjri manifeste manifester wane maanaam pas manifestation taal wala dara mais juste wane ni que signal bi ñu coupé ci Walfadjri du dëgg du yoon et que ànduñu ah ça je ne je ne suis pas au courant loolu yëguma ko woon mais ça loolu suñu ko defee aussi c'est pas normal là c'est pas normal et les les les les Sénégalais jugeront. moo tax ma ne la Sidi Lamine dañ ko war a dañ ko war a delloo njukkal puisque def ci jouer de démocratie sénégalaise daf ci jouer un rôle très important loolu bu ko nit ñi fàtte waaw moo tax mane dañ ko war a njukkal. laq di rek laq di am ci lu ma laq di lool di ñaan yàlla yàlla na leen ko yàlla delloosil. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko coupé lépp loo xam ne ba ñu coupé yàlla yàlla wëlbati seen xol ba ñu delloo si seen xol ba ñu delloo seen woy fay ci lu gën a gaaw te yaakamti nañu ko lool nag yaakamti nañu ko lool ñu ki ñaan yàlla di ko ñaan place de la République di ko ak lépp képp koo xam ne mën nga ci jàpp na nga ci jàpp wal fajir yi dellu si yaakamti nañu ko lool ci barke sëñ Babacar Si loo ëpp loo xam dimbali ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak si lu ñu ci dimbali ci lu gën a gaaw nag lu amul délai amul ma dem ti ñëw. nañ leen bàyyi ñu liggéey ko parce que vraiment ñi fi liggéey ay kër lañ yor ay père de famille lañ quoi wax dëgg fa yàlla man xam nga wal fajri moom euh, rajo bu ma neex la xam nga surtout Oustaz Adi Niass moom dama koy déglu chaque fajar dama koy déglu waaw chaque fajar dama koy déglu barke Serigne Touba waaw kon waaw moom daal nañ leen bàyyi ñu doxal quoi.